sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain bokki addina bi yëpp bokki jullit yi noo ngi yëkkati sunu kàddu di ci jiital sant buur yàlla di ko ñaan itam mu dolle julli ala qiblatil arwaaxi e mawlaana muhammadin alayhi salaatu wasalaamu ak waa këram ak i saxaabaam ak soxnaam mboole njabootam ga salaatu ak salaam boo xam ni danay baawaan ak a xëpp ba àgg ci képp ku teg sa tànk mbaa sax ku tegul sa tànk ala siraatil mustaqim yàlla na buur yàlla boole ñu ca ña teg seen tànk ala siraatil mustaqim di ñaan borom bi tabaraka wa taala itam e niiri barkem yaak niiri ngërëmam yaak niiri leeram ya yàlla bu mu deñ di ko dotti ba faw ala darixi cheikhina wa wasilatina ila rabbina babil xawaaiji ila allahi taala mawlana abil abbasi ahmad at tijjani رضي الله عنه اك مbole خليفام ياك مقدمام يا اك مbole نجابوتام غاك طالوبيم يا اك مbole سوبيم يا يالا نا يالا بوله نيو تي سوبيم يا تي دغ يا همت الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها انا الوطري بوكي جلتي ايه تبارك الله دفا ام رك خمنا وقتان وو insha allahu taala wo xamni ay bokk dañ ko sakku won fekko nit ñun ñu naron ko e diko jaarale fa tabarakallahu itam ci suñu canal bi nga xamanteni bi ni modi euh wilan TV fa tabarakallahu ñom itam ñu ngi rafetlu bu baax seen taxaway di leen gërëm bu baax itam ci seeni yëngatu ak seeni dal ndax lu tasaare l'islam ak tariqa ci lañuy yëngu guddi ak beccëk wax dëgg yàlla fa tabaarakallaahu ñu jar a gestu lañu ñu jar a bàyyi xel lañu ndax seen disponibilité kon nag euh, bokk yi yaakaar naa bu ñu bu ñu waxee euh, Cerno Mouhamed Saïd Ba wala ñu ci senegal wala ñu wax diin euh, Sirajuddin diin xel yëpp. dafay dem Madina Gunaas fa tabaarakallaahu e, góor googu nag yàlla dogal na e, xale yu bare xamuñ ko waaw moo tax mataamu woon sax ñu jaare ko ci lakku wolof ndax ñu bare ci xale yi mën ko xam ndax bi muy génn àddina di wuyu ji boroomam xale yu bare nag dogal na yàlla dogal na booba ganeeguñ jamono Cerno Mohamed Saïd mi ngi gane jamono 1900 moom ak Cheikh Alhaaj Mouhamadul Mansour Cheikh Ibrahim Niass Alkawlaxi Soxna Astu Kan Alhaaj eh, Umar Ndaw radiallahu taala anhu ak moom Cerno Mohamed Saïd Ba ñoom ñii ñoo bokk at moomu di 1900 yàlla dogal na ñoom ñëpp ay wali yu yàlla lañu Cerno Mohamed Saïd nag buñ ko waxee Daken bi nga xam ni siwe cijamono, modon ci jamono moo doon siraaju diin siraaju diin nag wax ju wax ju tënku la mooy lamp dini batu siraaj ji firi lamp kandi nga dégg ci alquran sunu borom di wax ya ayuha nabiu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa daaciyan ila allahi biidnihi wa sirajan munira gis nga ceerno mamadou saïd fofu nga koy delloo yalla ni yonent bi yow dey dañ la dañ la solo nga wara solo nit ñi c'est-à-dire yow da nga wara asaman, informer nit ñi xibaari asaman waaye ci say fonction yitam da ca bokk wasiraa jëmmu niira da ngay nekk lamp boo xam ni da ngay leeral addina leeral nag bokk yi boo ko parce que lépp loo xamante ni bii nii lu dellu ci ñàkk a xam la muy jahaala réer lëndëm la jikko ju ñaaw lëndëm la ñàkk teggin lëndëm la yooyee yëpp ay xeeti lëndëm yu wuute la su ko defee nag Cerno Mohamad Saïd radiallahu taala anhu yàlla moo ko boole ci awliyaa yooyu nga xam ni ay awliyaa mursal lañu yàlla yónni leen ci jamono pour ñu ñëw nekk ay lampi diine fépp foo xam ni yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam am na fab fa taalibe fexe nañ ba teg fa seen tànk lafa leerul ci diine yépp ñu leeral ko bokkoon na ca ñooñu ki nga xam ni kaana waxiida asrihi muy eh, eh, tabaarakallahu cerno Mouhamed Saïd Ba ca Medina Gunaas fa tabaarakallah bokk yi xam nga ab sëriñ di wax ni yàlla defal na ko nangam yalla defal na ko nangam yàlla defal na ko nangam lu mu ko baax baax baax wax ci moom lees mën a roy moo ko solo yonent alayhi salaatu salaam suñ borom bi mu ko nettalee jaar jaar yonent yi ba noppi ca wa tilka xujjatuna na ja gis nga fa mu tee rek moom daf ko ni ulaika alladina hada allah fa bi hudeehu muqtadi ñii laa gindi ñu tegu ci yoon wi tegu ci raay bi fexeel ba yow na nga tegu ci raay bi ni ñoom ni ñu tegoo ci raay bi royal ci ñom donc lolu nak la bëgg a indi Cheikh sayyid taala anhu bi jang jotee da jang ni ñepp kon nak xalé yi adina képp ku tok mba nga di ma seetaan nga may déglu da nga xamni eh, daaka bi ngeen di dégg ak mu jot muy am ci Medina gunas nit di bawoo fu nekk ci adina di fa dem ñu di fa tal lampi diine di fa soqi sox nga xamni modi jumi cheikh Ahmed Tijani radiyallahu taala anhu kooku nga xam ni moo ko samp àndoon kaak sëriñam yaak mbokki daaraam ya muy Cerno Mohamed Saïd ba jàng jote daa jàng xam nga da ngeen dégg ca Fuuta ca Ciloñ këru diine gu mag goo xam ni lamp diine ak jum alquran yàgg na fa takk muy Cerno Xamme Baba Talla Cerno Xamme boobu moom kii di Cerno Mohamed said jaar na ci loxoom ci walu daara ci ilmu zahir koku nako nako ñepp xam te Thierno xamé du kuñu umpelé umpale Thierno Hammet Baba Talla ñepp a ko xam waaw Thierno Mamadou Bokor kan bu Kaydi adam ak gay bu Idi ak Alpha Ibrahim ci Kanel aywa Thierno Mohamed Saïd Ba borom Medina Gunas ñi ñepp kenn ku ci nek wali yu nga yalla dogal na yaangi ngi jaar ci loxo Cerno Xamme Baba Tall ci ci lañu Cerno Xamme bobu ala dafa dogal momo mo netali ci lu wer ne gis nga ki di Cerno Muhammad Said bi amé euh 12 ans ci tiba yonnati bi alayhi salatu wassalam feñu jité ko julli mom Cerno mohammed Saïd mu tek ci mom Cerno Xamme ni mom Cerno Muhammad Said ba siraaju diin radiallahu anhu ndeysaan mu ni bu amee ñeen fukki at ku mu jiiti julli sa yaram xaram na safara kon kii moom kenn lam-laameewul cëram ni mu toll ci yàlla déedéet kooku laayu maara fii te ànd loolu yëpp li ko firndeel ca Medina Gunaas am na bés benn waay ndeysaan dafa dem nappi ji ay lëg daal di koy wekkoo fàtte ko ndax ñoom dañu fonk danaa ci ñëw ca kanam tuuti ci fonk gu Thierno Mohamed Saïd fonk sunna yonente bi alayhi salaam ak nangoo tënku ci sunna yonente bi alayhi salatu salaam nga xam ni loolu mooy karaama bi ëpp doole ci nit yàlla karaama bu nit yàlla mën a def te teguloo sa tànk ci sunna duñ ko tuddee karaama istidraaj la mm. ndax cheytaane mooy def loola Thierno Mohamed Saïd waa dafa noppi ñëw wala boog dafa dafa rëbbi ñëw ndeysaan eh, eh, yàkkamtee dugg ci jàkka ji ba fàtte ni moom mi ngi wékku saak bi nga xam ni ci la def lëg yi mu jàpp daal di ñëw julliwaale ko dem këram keroog kenn Momar moo jiite julli ba mu demee këram di togg lëg yi di ko togg di ko togg di ko togg di ko togg ay waxtu lëg yi xoolal noonu mu leen dugale woon ci biir cin li lëg yi noonu lañ koy xoolee <laughs> xonq coy mu jaaxle yëf yi ëlëm ko après ndeysaan ci mbaaxu yàlla mu am kum ca waxtaanal kooku ni ko ah yow bi ngay julli lëg yi foo leen tegoon mu ni ko dama koo fàtte ba wékkoo ko julli waale ko mu ni ko du ñu ñor te du ñu lakk Cerno Mohamed Saïd ku mu jiite sa yaram xaram na safara mu ni ko ba ci lëg yi ma wékkoo ah mu ni ko maa la ko wax kooku daal di ni ko loolu il ñu seetaat ko ndeysaan daal di dem bi mu demee ci ëllëg sa mu nappiwaat dëggal dem rëbbi ndeysaan rëbbi ba mu rëbbee ba ba ba jàppaati lëg daal di jël yenn yi teg ko ci biiti jàkka ji ñaar yi mu jël ko wekkoo ko julliwaale ko ba mu demee këram boole lëg yi yi mu wekkoo ñi ngi xonq cooy di ko xool yeneen yi ñor nañ ba seey kooku mooy ci mooy Thierno Mouhamed Saïd Ba di siraaju diin fa tabarakallahu kooku nag nee naa mi ngi jaar ci loxo Thierno Hamé Baba Talla radiyallahu taala anhu Thierno Hamé ñu moom borom cër la ñi jaar ci mom ñëpp ay boroomi cër lañ no xamé ko xol ni mu jëlee tariqa tidian di nga xamni borom cër la ndax Seydi El Hadj Malick radiallahu taala anhu mom ci bopam mom la yàlla xamal ne ko ki di no xamé de tariqa bi mu yor bu bu yàlla défé mu jàpp ko ba génnaale ko adina lu ëpp ci wa waa dañ danañu nek ay qadir ndax tariqatul qadir yi la yoron ah Seydi El Hadj Malick daal di tëju xalwa moom ak Cherif Mouhamadul Mukhtar wa daani ba xalwa ba àggee ñu génn léeg ñaan rek yàlla subhaanahu wa taala mu jël kii nga xam ne moo di Thierno Hamme Baba ndax ñi mu jàngal dañoo bari te ñi mu jàngal ay nit la lañ Thierno Mohamed Saïd ba mii ci la bokk Seydi El Hadji Malick radiallahu anhu waxtaan ak euh, euh, Chérif Abdoul Mokhtar ni ko il faut ñu dem gaaral ko tariqa bi mag la woon ah Chérif ni ko baal ma dem ba mu demee ak ñamu àndal góor gi daal di leen tatagal ganele leen ci Chérif ni ko man de suma tànk moo doon rek gaaral la tariqa tijaan mu daal di ni ko man shabba ala shay'in shabba alay aywa nit loo loo jébbi rek ca ngay màgget yàlla dogal na man tariqa qadriya laa yor ilaa yawmina haada aywa bàyyil rek ma ma nekk ca ndeysaan ba ko waxee loolu nga dégg eh, eh, eh, Chérif Mahamadul Muxtaar ni ko aca kon bismillah daal di bàyyi noonu ñu tàggatoo san bay dem Chérif Mahamadul Muxtaar dem na bàyyi waaj a génn dëkk bi cerno xamé ay xel la ko ay xel dik ba ci tànki sherif Mouhamadul Mokhtar Wadani Zakir daldi di ci kanamam ni ko léegi mën nga ma jox tariqab tijaan ndax lu tol ni tariqab tijaan ana nan le nit di toge di xolé ñu di ko ko andil da nga wara daw dem jeliko gis nga koku mo jàngal ki nga xamni modi cerno mohammed Saïd bakon da ngay gis ci loxo yi mu jaar te loolu aussi day jeexital ci nit ak lu ko sa cër rëy rëy rëy rëy rëy nga jaar ci loxoy nitu yàlla faw mu def ay tasiir ci yow faw mu jeexital ci yow waaw ah, bu ko defee nag kooku kon ci bàyyi ruuxam yi la bokk ci wàllu daara fa tabaarakallahu kii nga xam ne moo di Thierno Mohamed Saïd Ba gannaaw bi jëflante nag yeneen nitu yàlla ku mel ni Thierno Ali Thiam gannaaw bi jëflante nag ay nitu yàlla ku mel ni Thierno Ahmad Baro nga xam ni fa tabaarakallahu kóllëre gi doxon ci seen diggante dafa mujjoon sax yem dayo E, e, e, xam nga bo xolé cheikh mohammed Saïd ak cheikh Ahmed Baro seen diggante keman la ndax xam nga cheikh mohammed Saïd yalla dafa def mu teel a ubbeeku yàlla dafa def mu teel am fatu lool nak ñu bari xamuñ ko cheikh mohammed Saïd dugg ndaw de he la ilaha illa allah gis nga bi mi sampé dekkam bobu di Medina Gunaas 1935 Tombek at momu ci la cheikh Ahmed Tidiane ba mi nga xamni moy khalifam tay ji Yalna na guddal fanam yalna na wiral ay cëram yal dundu junni at koku ci ñi kal jamono la bok barke Cheikh Tidiane wa ci ca Cerno Cerno Tidiane koku wallahi ci ñi kal jamono la bok yalla xamnako na ko nit yalla bu mag jamono yele ndaf ndaysan daf ko wax ya jamono ngi jo xamanteni bi ni fek man ma ngi yewu parenthèse rek la di yek ni cheikh Ahmed Tidiane Ba ci Medina Gunaas mi ngi dundu man luma neex def alhamdulilah sama xel dal na ci réew mi waaye bu ma ñun ma ci na man ci na ci rahmatu yani radiyallahu anhu nekatu fi mu ni ko ndé su boba man dina xol naka lay def ma set numa def ndax su boba mom tabarkal la pour wane cërëm te ki wax lolu wala ajuwul sax foofu waye nak li ñi wax naan ndaysan li arab yi di wax rek mo ci nek fal haqq maqbul wala min jahili deug mom des ko wara a nangu rek ndax lolu moy grandeur gis nga bi mu sampee dëkkam boobu pour wane moom cëram dafa reey de yàlla dafa dogal booba jamono neexul comme tey waaye daf leen daan wax ni bu ngeen toogee fii jàpp tariqa tijaan fonk mbalaani wadifa fonk julli juróom di bay di dundi lan nit ñi di daw di uti ji ndakaaru dana daw fekk si leen fii man dem naa fa demati fa kon xam naa la fa ne barke gis nga noonu mu ko doon waxee nu ko raw la amee Thierno Mohamed Saïd moo ko daan wax waa Medina Gounass bu ngeen saxee ci mbalaani wadifa yi sax ci julli juróom ci jàkka ji di bay di dunde insha allahu lepp lu daw lu li ngeen di daw di ko uti ji ndakaaru mooy daw di leen fekk si fii te booba jamono mu leen koy wax benn bool lañ daan am bu waxtu añ jotee mbooloo mi dañuy teg bool bi kenn ku ne tibb benn dank sex jóg xajal sa morom mu tibb sex noonu lañ ko doon defi di ko ni defe di ko ni defe ba mbooloo mi jeex buñ paree cerno mamad saïd ni fatiha salat al fatiha ñu jàng fatiha jàng salaatal fatihi bu ñu paree mbooloo mi ñëpp suur ñëpp suur ci tàng-tàng bi kooku mooy Ceerno Mohamed Saïd radiallahu taala anhu moom moomu nag dafa bokk ci ñi nga xamante ni bii ni jaar na ci seen loxo ci wàllu yàlla kooku nga xam ni moo di Ceerno Ahmad Baro ca Mbuur ñëpp xamoon nañ ko doon nitu yàlla bu mag nga xam ni digganteem ak Seydil Haj Malik radiallahu taala anhu diggante bu yéemee yéeme la ndax Seydil Haj Malik ñaare sax daawul faral di defee noona waaw xëy ni tey danaa am gan bu ñëwee na ngeen ma waaw na na na ngeen ma ko yëgal ci waxin na yëglu keroog ba mag ma ñëwee moom Thierno Ahmed Baro pour wax leen cëram ci yàlla ba mu ne tëll Tiwaawan bi mu yegsee nee na moom li ko ëlëm mooy ñii wër Alaj Malik radiyallahu anhu nan lañ ko mën a wëre parce que nene si aj malik ci joram ndeyjooram yonent bangi tok mbagum chamagne Cheikh Tidiane ngi tok gor gi mi ngi fële mom di sin nene ñi nan lañ mëna wéré ni alak malik kon xam nga koku ci waxin da ngay xam ni borom cieur le muy Cerno Ahmad Baro gis nga nag moom moomu radiyallahu anhu moo jëflante ak Cheikh Malik ci yalla, yalla waye gis nga si Malik da mak mo xamanteni bi ni lu bari ci rew mi da ko defar ta feñu ca radiallahu taala anhu Sidi Hadj da doon mag moo xam ne lu bari ci réew mi da koo defar te feeñu ca loolu it il faut nit ñi di ko bàyyi xel ndax dina tax yenn yu bari ñu gën koo gën a rafetal gën ko taaral te gën a bàyyi xel foofu nga xamante ni bii ni moo di dëkkuwaayam ba mu di Tiwaawan nag ndax Cerno ma Tiijaan bii fi nekk fonkeelam ci Tiwaawan ñun xam nañ ko Cerno Mansour Baro radiallahu anhu doon doomi Cerno Ahmad Baro fonkeelam ci Tiwaawan xam nañ ko li ñuy wax xam nañ ko waaye bokk yi ci la mat baro keroog parce que il faut que ngeen xam tuuti ci loxo yi ñi mu jaar ñan la ñu parce que xam gi dina tax ñu xam kan mooy Thierno Mamadou Saïd wax naa leen kan moo doon Thierno Hammet baaba waaye kii nga xam ne mooy Thierno Ahmed Baro eh kooku kooku mayam dafa rëy wallahi la azim gis nga Thierno Ahmed Baro fële la toll bi mu accès Tiwaawan di seen yonent yàlla Muhammad alayhi salatu salaam di seen Cheikh Tidiane radiallahu anhu ni ñu séqe Sidil Hajj Malik radiallahu taala anhu ci lu wér mu ne ñii nan lañ mën a wëre góor gii ak yii ko dar keroog ba mu agsee ba jëflante ak Sidaaji Malik radiallahu taala anhu la muy jëflante ak moom la ca gën a yéeme Sidaaji Malik ci li ma doon wax ni bari na lu mu defar ci réew mi te feeñu ci moo ko njëkk a signalé Thierno Mohamed Saïd pour xamal ko niko di nga am ben talibé sa domi ruu lay doon ku yalla may fathu la ku yalla may àlliwa wala yeen ñaar da ngeen dajé te bu ngeen dajé yeen ñaar da ngeen waxtaan ci nangam ak ci nangam ak ci nangam ba ci jawahiral maani mu niko waye bu ngeen ci àggee nak bayit yoyu cheikh sid ahmed tijani radiyallahu anhu don firi ca ainani lam yaktubuhuma qalamun fi kulli aynin min al aynaani nuunaani nuunaani nuunaani lam yaktubuhuma qalamun fi kulli nuunin min an nuunaani aynaani mu ni ko bu ngeen ci àggee dana ko bëgg a tëb dana ko jël waaye delloosi ko ca loola ndax Thierno Mohamed Saïd ci boppam xamaloon nan ko ni ki lay firil bayit yooyu kooku mooy sa sëriñ ci yàlla waaye loolu nag bokk na ci li tax keroog bi mu dajee ak Thierno Ahmed Baro ñu tër nga xamante ne bii ni moom moo di jawahirul maani bi ba àgg ca aynaani aynaani lam yaktubhuma qalamun fii kulli aynin min al aynaani nuunaani mu bëgg ko jël Thierno Ahmed Baro delloo siwaat ko mu bëgg ko jël Thierno Ahmed Baro delloo siwaat ko ñetteel bi yoon mu daal ni ko ah, dañ ma ne woon ki koy firi mooy doon sama sëriñ mu ni ko nañ ko seet ba xam nañ ko seet ba xam Thierno ak moom necc ak moom necc ak moom ba mu xam ni kile moo di sëriñam bokk yi gis ngeen ni silsila bi tëddee ميري واخ اك يين تي راما تيجان تي نيمو جوخ اجازه اطلاق تي لا بوك اجازه التقديم لما جوخ والله العظيم بو ديمي تي سلسله ييغا خامتيني بي ني تي احمد تيجان تي لاي مايي ورد بيمو تي نيكا ديف تي كاو تي سلسله يي خمغا موي بان موي بي سيد الحاج مالك man Cerno Ahmad Tijani Ba jële ci suma baye Cerno mamad Saïd Ba mu jële ci sëriñam Cerno Ahmad Baro mu jële ci sëriñam Seydil Haaji Malik Si mu jële ci ndejaayam al fahima Yoro Wele mu jële ci sëriñam Cheikh Omar mu jële ci sëriñam Cheikh Abdul Ghali mu jële ci sëriñam Cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu bobu ijaza mo nek ci kaw ak Cerno Tijani limi bari bëri yeb bobu la nekk ci bobu limi muy tegtale mooy boobu ci lay bindalat ijaza waye bobu ci lay maye verte kon kóllëre googu góor gii di Cerno Ahmad Tijaan ila yawmina hada atala allahu baqaahu wa ayyadahu wa nasarahu ila yawmina hada mi ngi sàmmoonte ak kóllëre googu yal na yàlla yàggal jamonoom bon nag bokk yi kii ci gàttal moo doon Cerno Mamad Saïd gis nga nag euh, moom mës naa ko laaj eh, benn benn sëtam bu ñuy wax Cerno Bun Salim doomu Cerno ma Tijaan la sa sama sama xarit la Eh, ñaare foofu laay dal ci moom bu ma demee ma dina ah dama am bés ma laaj ko ko ma ne ko waaw Thierno Mamadou Saïd eh, eh, téere yi mu taalif bëggoon naa ngeen toppatoo ma ko yi ma ci mën a jàngale ma jàngale ko ci wolof bu ko defee nit ñi xam ko mu ne ma waa baax na incha allah waaye na nga xam ni nag sama maam Thierno Mamadou Saïd moom lu ci ëpp da daan wax rek ba mu ko waxee woyofalu ko parce que ñoom noonu la ñuy waxee du ñu bëgg a feeñal dara. ma xam li mu bëgg a wax lan la loolu maqaama la ci piyu yàlla bi dañ koy donn yonent bi da daan wax rek masul bind Cheikh Tidiane da daan wax rek masul bind Abul Hasan Chadili da daan wax rek masul bind Cheikh Abdul Qadir al Jilani da daan wax rek masul bind maqaama la ci pii yàlla boo fa àggee dootoo bind da ngay wax rek parce que nit yàlla yooyu mooy nit yàlla yi nga xamante ni bii nii keroog ba yàlla bindee leeru yonent bi alayhi salaatu wassalaam leeru yonent bi suñu borom janoog moom di ko xool muy toq ba tok cent vingt quatre mille toq toq benn toq toq bu ne yàlla bind ci benn yonent muy cent vingt quatre mille yi lim ba mët cent vingt quatre mille yooyu après bi leen suñu borom bindee benn bu ci nekk danga ngaa nokki nokki googu nag yàlla daf caa bind benn wali yu gis nga wali yooyu moom lañ tuddee awliya u mursal yi gis nga nag wali yooyu Thierno Momar Saïd da caa bok yooyu nag boo ca bokkee doo bind ci waxin mm-hmm. waaye da ngay wax rek loolu ki ko firndeel xam nga mooy kan Thierno Ahmad Baro sëriñam mhm. fu mu masaana ànd ci tournée yi nga xam ne Thierno Thierno Mohamed Saïd daana ko def ci biir réew ak biti réew bu ñu àndaan mhm. bu wax jotee daf naan nañu jox Thierno Mohamed Saïd mu wax ak nit ñi mhm. Thierno Mohamed Saïd mooy waxtaan te buy wax du bind du xool fenn. day téye waxukaay bi ci waxin rek di wax te booba waxukaay amul te li gën yéeme nettali nañ ci Cerno Mohamed Saïd gis nga bu daan wax ak luko ko mbooloo mi bari bari loolu ci Cheikh Omar la ko donne radiallahu taala anhu ci lu amul benn werante am na ay nit yàlla yoo xamante ne bii ne Cerno Mohamed bi mu war a jëflante ak ñoom ñooñu xaw a mel ni ñu xaw a kile xaw ko kii tuuti waaw ci waxin wa am na ci koo xam ne Cheikh Omar moo ko feeñu radiallahu taala anhu ni ko ñaar mooy mën a am nga jox ko baaman ma joxal ko sama bopp te Omar Saïd la wax Cheikh Omar ci bopam loolu la wax ñitt yalla yàlla jox ko wala man ma joxal ko sama bop pour wan len ni koku cërem cër bu reey la ci yalla Cheikh Omar Saïd momu nak la wax ni gis nga buñ ma saana nek ci mbolo Cheikh Omar Baro nan nañu jox Cheikh Omar Saïd mu waxtaan ñu ni waaw mu ni yalla ba mu bindé yonenti yonenti yoyu bañu nokké sen nit yalla ya ca yalla bind ñoñu dañuy doon boromi ndigal ci wax seen wax dana mën a àgg ci xolub nit loo doy waar doy waar da ko mën a dégg te da ko mën a jëfe te dana la mën a soppi Cerno Mamad Saïd sëriñam Cerno Ahmad Baro moo seede ci moom loolu te li lay wan ni doyloo na ko moom Cerno Ahmad Baro ana lu tax mu jël doo doomam Cerno Mansour Baro radiyallahu taala anhu tofal ko ci kii nga xamante ni bii ni moo di Cerno Mamad Saïd li ci Cerno Mansour Baro yaayam ci boppam moo ko wax keroog bi ci Ahmad Baro génnee àddina bañ denc ko ba dëj bi passé yaayam moko wo ba mu ñew mu ni ko xam nga lu ma lay xamal Fi dara desetu fi Fi dara desetu fi bu fekkee bëgg nga dara demal nga topi Cerno Mouhamed Saïd Ba ndax man waxtaanu ñaari góor yi ma déglu Cerno Ahmad Baro ak Cerno Mouhamed Saïd fii dara desetu fi demal nga topi ko gis nga keroog kenn Liri bi muy dem liir yi liir yi sax dalina Médina Gounass bi mu fay dem liir yi da leen a yóbbaale tànku neen la daan def topp ci ginnaaw Thierno Mohamed Saïd di ko bàyyil tool di ko jottalil di ko liggéeyal kooku li mu am da koo jaayante ba xëy am ko Thierno Mansour Baro radiyallahu taala anhu góor gu mag googu xam ni keroog ba mu wàccee France tubaab yi dañ ko doon xool ba yàgg ñu ni mais ñun gisuñu nit malaayika la ñu gis bii taar ak bii leer nit musu ko am Thierno Mansour moomu dafa jaar ci loxo Thierno Mohamed Saïd pourtant mënoon na wax mu ni man Thierno Ahmed mooy suma baay mooy sëriñu ci yi nga xam ne Thierno Mohamed Saïd la kon man maa war toog nekk sëriñam wàllu yàlla moo doxewul noonu yëf yi fan la jóge ci Haydara ñëw ci taal jóge ci taal dem ci wele jóge ci wele ñëw ci si aywa yàllaa ngi noonu sama boroom yàlla moom aw tëralinam du soppeeku de ñun ñooy soppi suñu tëralin sunnatallahi allati qad xalat min qable walan tajida li sunnatillahi tabdila waaye walan tajida li sunnatillahi tahwila saa borom yàlla du watte aw yoonam ci nim koy tërale waaye du watte aw tëralinam di ko soppi di tërale neneen mukk parce que Thierno Mohamed Saïd dafa dimbali Thierno Mansour Baro boobu bàyyi ma ngi dund Thierno Mohamed Baro am na bés pour wax leen rek ma Mohamed Saïd kéemaan la laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah kéemaanu yàlla la am na bés mu dem mbuur moom Thierno Mohamed Saïd di waxtaan ak Thierno Ahmed Baro sëriñam ah moo doon sëriñam nag waaw ah, bi ñuy waxtaan ba yàgg Thierno Mansour daal di gis seen jotaay bi ak waxtaan wa mu ne ñaari góor yàlla yii seen jotaay bii ku ñaan fii yàlla dina la nangul daal di dem jàpp toog tàmbale di ñaan Thierno Ahmed Baro tourné am ci moom daal di ni ko ah Thierno Mamadou Saïd sa waa ji daa mel ni. Eh, te ko ñu laaj ko bëgg ba xam ci dal di koy wo moom Thierno Mansour mu ñëw Thierno Mat Baro ak cerno Mansour ni ko waxal lepp lo bëgg nga ñaan ko yalla lebag, ñu defal la ko mu tambali nangam la bëgg nangam la bëgg nangam la bëgg di lim di lim ba yag cerno mamad Saïd ni ko deglul ma dimbalé la dejju deglul ma dimbalé la koku deglu mu ni ko ñaanal yalla nek talibé Cheikhana ahmed Tijani ndax adina ak yiwu àllaaxira lu nit di wut addina ak àllaaxira mi ngi nekk ci nga doon taalibeb Cheikhana Ahmada Tijani radiallahu taala anhu ñaanal yàlla doon taalibeb Cheikhana Ahmada Tijani kon loolu foofu nag falaay barastikoo pour dugg ak yéen ci li nga xamante ni bii ni mooy daaka bii nga xam ni ak mu jot eh, yàlla dogal na eh, eh, mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi am ci ndigalal kii nga xamante ni bii ni moo di Cerno Mouhamed Saïd Ba am nag ay ay ay ndaw yoo xamante ni bii ni fa tabarakallahu actuellement ñi ngi bokk ci dentel bi euh, benn association la boo xamante ni bii ni ay cadre ñoo ko ñoo ko ñoo ko composé ak ay donga yoo xam ne ñii ay sëriñ daara lañu fa tabarakallahu euh, ñi ngi ko créé depuis le 8 février 2020 ñoom nag dañu dañu daje te li tax ñu daje du dara lu dul euh, diggante Mbuur ak Medina Gunaas Ndakaarook li wër Sénégal ak àddina yëpp فتبارك الله ñu xol naka lañuy def ba liggéeyu ci muhammad Saïd radiallahu taala anhu ak projet yi nga xamanteni bi ni amon nako ñu seet naka lañ koy wëyele d'une manière plus formelle mais d'une manière plus organisée su ko defee nag ñooñu fa tabarakallahu bañ na ko ba sax seeni mission daf ci bokk naka jekk loolu nga xamanteni bi ni mooy remobiliser les disciples fexe ba taalibe yi li doon nelaw ci ñoom ñu yee ko ba ñu xam njàngalem Ceerno Mouhamed Saïd lan la ak lu taxoon yàlla indi ko ci jamono ak lu taxoon di sonn diggante 1900 ba bi muy wuyu ji boroomam ndax Thierno Mohamed Saïd 1900 ci la génn àddina wallahi alazim keroog bi mu génnee àddina Cheikh Aziz radiallahu taala anhu keroog bi mu ko jaalejee ci ngay xam ne Thierno Mohamed Saïd du ko tuuti ba mu demee ñamu àndal ni ci téere yi bi ngeen ñëwee fii gis ngeen ko waxul dégg ngeen ko de gis ngeen ko parce que ñooñu dañuy jëfee bokk na wallahi alhaaj bilaaji radiyallahu taala anhu tegal leen ci ne leen ku bëgg gis nit ku ne àjjana di daagu ci kaw suuf na xool waa Medina Gunaas cheikh alhaaj abdul aziz radiallahu taala anhu góor gu ñàkki ñaan googu moo waxoon lool Thierno Mohamed Saïd bi mu génnee àddina c'était en 1980 kon nag ñooñu nga xamante ni bii ni mooy euh, CEOD pratiquement mu nekk benn association dénommée cadre de euh, change e et d'organisation des disciples de Thierno Mohamed Saïd Ba ñom fa tabarakallah bokk na ci seen mission li nga xamni moy remobiliser les disciples waye itam vivifier les enseignements de Thierno Mohamed Saïd Ba moom vivifier c'est-à-dire dundalaat yaatalaat li nga xamni moy njangalé Thierno Mohamed Saïd Ba radiallahu taala anhu waye aussi tamit appuyer les pro appuyer les projets de Thierno Mohamed Saïd Ba radiallahu taala anhu maanaam lepp lo xamni xalat la won ba bëgg-bëgg la won mbaa yéene la bu Cerno Muhammad Saïd radiallahu taala anhu amoon ñoom ñi ngi ànd bootu ci ginnaaw kii nga xam ni moo di Cerno Ahmad Tijaani ba radiallahu taala anhu ànd ak moom pour que lépp loo xam ni yéene la woon bu ca namat saa it amoon ñu seet naka la ñuy def ba mën koo appuyer bën koo mottali léegi nag euh, euh, association la boo xamante ni bii nii pratiquement euh, lépp lu jëm ci wàllu daaka bii nga xam ni ci la ñu jëm ëllëg gannaaw ëllëg ak jàmm incha allahu taala déroulement bi pratiquement lu ci bari am nañ ci cër yoo xamante ni bii nii ñu ngi ko ci ñu ngi ko ñoo ngi koy ñoo ngi koy doxal lu yaatu la nag ah. waaw lu yaatu la parce que dafa nekk benn ay jeunes intellectuels yoo xamante ni bii ni fa tabarakallahu ñii eh, jaar nañ ci école française ñii ñi ngi ci daara du benn kii rek benn koor rek fa tabarakallah waaye ñoom ñëpp nag nekk en harmonie ànd nekk benn fas yéene liggéeyal l'islam bi ci tool bii nga xamante ni bii ni ka ca nekkoon di ruuj ak di bay te ma rafet lool moo doon sunu maam sunu sëriñ Thierno Mouhamed Saïd Ba Don Sirajuddin, diin radiallahu taala anhu dak bi nak bokk yi dama ci wax ben wax bu gatt rek gis nga nama mar saay ci jëmmi bopam ci jamono ya nga xamni ni jamono da dan gor dak bi te buñ ko goré nga dégg yuuxu tilli yi ak yuuxu gaynde yi parce que fofu àll la bo xamni ni booba kenn ñëwu fe tek sa tank waaye am nga nitu yalla mbiram rek ak bëtam na sore booba ndeysaan ma ngi ko and ak gor gi cerno Ahmad Baro gor gi alaji ñu eh, koy waxe ci cerno Ali cham radiyallahu taala anhu ak ak ak ponkal mële ka dëkkoon ci Eh, eh, eh, nuñ koy waxee sax borom borom kii way way ngand mi rek. waaw dé déedéet bokkul ak ca ca Cheikh Ahmad Tidiane Fass Cheikh Ahmad Tidiane Fass kooku taalibe Cheikh Mahamad Saïd Bala waaw ah, taalibe Cheikh Mahamad Saïd la moo ko jàngal Cheikh Mahamad Saïd ci boppam bokk na ci li mu waxoon moom moo ko wax ca dundam mu ni yëf yi su fekkoon ni da ngay xool ku la neex rek nga yëkkati ko nga jox ko ko. kon yëf yi dama koy jox Cerno Ahmad Tidiane Faas ndax borom xam-xam la borom wilaya la waye seeni borom ñoma ni nako jox suma dom bi di Cerno Ahmad Tidiane yi ba ànd ak moom ba ci rawdu Cheikh Tidiane Cerno Ahmad Tidiane toog Cerno mohammed said ba tok muniko Cheikh Tidiane yëf yi yama ma te yama ngi na jox suma Tidiane ngi ni jox nit yàlla la boo xam ni mayam foo ko takk passé na ko te cëram ci yàlla li ko firndeel mooy alul bayt xeetu fonkeel ak xeetu mbëggeel ak teraanga yi muy séq ak ñoom waa kër yonente bi alayhi salatu wasalaam maa ngi ñëw ci daaka bi gis nga dama ciy joxe benn exemple rek doomam bii gaañu ndeysaan yal na ko yàlla yërëm sëriñ bu baax la woon góor yàlla gu yaatu dënn la woon macha allah doon liggéey lu bare bare moom itam ci organisation wu daaka bi daan sonnal lool ki nga xam ne moo di Ceerno Ahmed Tidiane Ba mu doon Ba doon doomi Cerno Mouhamed Saïd doon rakk ci Cerno Ahmed Tijani radiallahu taala anhu Cerno Abdul Aziz boobu dafa am benn bés ndeysaan kii nga xamante ni bii ni surtout Cheikh Tijani la radiallahu taala anhu Chérif Mouhamadul Habib mooy bi nekk fii Pikine gis nga kër googu lu nekk ca Pikine kër Cerno Mouhamed Saïd la ci kër Cerno Mouhamed Saïd la fekk chérif yooyu amoon jafe-jafe ci benn jamono ci foo xamante ni bii ni danañu fa nekkandi Cerno Abdul Aziz ñëw yam ci loolu bi mu ci yamee boolewu ci waxam tàgguwul baayam noon la waxe ak shérif yi naxante ak ñoom ba yóbbu leen kër Thierno Mohamed Saïd ni leen yéen lu ngeen bëgg jël leen bu ngeen bëggee kër gaa ngi yéen a moom yéen moom lépp te tàgguwul bàyyam gis nga bi mu dikkee di ko nettali Thierno Mohamed Saïd Thierno Mohamed Saïd da ko ni bi nga juddoo ba tey mosuloo ma defal loo xamante ni bii ni neexa ni mel neexe na ni ma comme li nga ma defal tey ba pare ni ko xam nga lu ko ci tegal yow moom fa tabaarakallaahu defal maa la garantie bés ni tey kon dafay firndeel Ceerno Omar Saïd radiallahu taala anhu xeetu cofeel ak fonkeel ak wegeel ak bët bu rëy bi mu doon xoolee waa kër yonente bi alayhi salatu salaam doon ko xoolee waa kër Cheikhna Ahmad Tijani radiallahu taala anhu te kat kaay ma wax la ko ànd ak loolu yëpp Ceerno Omar Saïd day borom cër boo xamante ni bii ni moom wallaay ku mu ku mu longooli mbagg wallaay day maslaak yow rek wallaay day maslaak yow am na benn shérif ca jamono ndeysaan ca jamono booba Medina Gunaas menegul noona shérif bi yàlla dafa dogal mu ànd ak Thierno Mohamed ci shérif yi ci lañu yooyu la mbokk yi daje ni ko yow shérif nga sëtu yonent bi nga nga topp tukulóor bii nii rek ah mbaa jàmm dal boole wu ci waxam ba benn bés mu ni leen dama leen am lu ma leen nettali tuuti rek dafa am benn bés may doxantu ànd ak Thierno Mohamed Saïd ci àll bi ca Medina Gunaas nee na ñu dem ba àgg ci benn taati garab nee nañ taati Dakar la nee na Thierno Mohamed Saïd maak moom ñi ngi fa fekk génn góor gur rafet foo ko natt ci taar passé na ko Thierno Mohamed Saïd daal di ne ko Chérif mu ne ko labbayk mu ne ko nuyul kii toog Chérif nee na ma nuyu ko waaye ma nuyu nit ku mel noonu ci kaw suuf nee na mu ne ko xam nga kii kan la Sherif niko dedet, mu niko ki moy sa mam yonent sallallahu alayhi wa sallam wat ko nuyu wat ko Sherif wëlbatiku mbokkam yi ko don yedd ci digganteem ak Thierno mohammed said mun len kan ci yeen moo sa am lolou yalla tere kan ci yeen moo mo sa moo meuna defal lolou ba pare ñen bëgg ma tàqli ko ak Said. Mohamed oh, la ko wax sepp la la ko bënn nga ci bir waaw damay pour ngeen xamni yef yi xaqiqa delluwul ci ay diway suma baye ak diway suma mam ci Ahmed Tidiane bi ngeen di gis netali nañ ni bi mo amé fukki ak ci la ko bàyyam Cerno Mamad Saïd jox fukki junni salaatul fatihi ak ñaar bis bu nekk ak 41 say fi yu ni ko yow na xam ni seen jamono jamono ju doy waar la dee ko jàng Cerno Mamad Tidiane loolu euh, sëriñ bi def ko ko joxoon rek pour mu def ko juróom-ñaari at waaye nettali nañ ni ilaa yawmina haada Cerno Mamad Tidiane nii ilaa yawmina haada ba bis tey loolu bàyyiwu ko sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin daana def loola maa la ko wax 12000 salaatul fatihi ak juróomi téeméeri jawharatul kamal bis bu yàlla sàkk moo ko wax suma benn xarit yàgg nag moom ci ne ko waa juróomi téeméeri jawhara yi de xam naa sama jot sax moo ma ko mayetul waaye douze mille salatul fatiha yi ba tey maa ngi koy def ba bu set sëriñ bi ñooñu du ay Babacar Si mooy suma bàyyi nii rek tëdd di xoole de dañu jëf lu tax li ñu am ñu am ko rahmatullahi alayhi wa radiya an bokk yi gis nga daaka bii ñu jëm e, ca dafa am benn benn wax bu ci Thierno Mohamed Saïd wax wax bu yéeme yàlla xam na ko mu ni gis nga lëkk yowmal qiyaam ku yàlla fay benn bëccëg boo mës a passé ci daaka boo gisee fay ga ca nam toll doon nga ngéejoo doon nga bëgg sa dund gi yëpp mu nekk daaka ci at ci loo xam ne at mu jot fukki fan la kon nag bokk yi gis nga boobu woote wallahi la azim woote Cheikhana Ahmad Tijani la radiallahu taala anhu amul benn ah foo xam ni waxtu yu juróom ci mbooloo ma moo fa nekk wadifa ca mbooloo ma benn wadifa moo fa am suba benn wadifa ngoon juróomi waxtu yépp Cheikh Ahmed Tidiane génn ñëpp ànd julleeku foofu da ngay gis taaru l'islam bi kenn du la nettali yaay gisal sa bopp bon nag góor gi nga xam ni fa tabarakallahu moo fi nekk di Cheikh Ahmed Tidiane yi yal na guddal fanam yal na yàlla fiq fanam dafa am benn wax boo xamante ne bii ni Thierno Mansour Baro daf ko ko wax daf ko wax Cheikh Ahmed Tidiane mii bii fi ne booba ña nga daje ca ñoom ñaar Ceerno Mouhamed Saïd joxoñ Cheikh Cheikhna Ahmad Tijani radiallahu taala anhu moom Ceerno Mansour Baro ni ko Cheikh Tidiane maa ngi lay seedeel ni kii di Ceerno Ahmad Tijani lépp lu mag ñi bàyyi woon def na ko mottali na ko ba def ci loo xamante ni bii mag ñi sax xalaatuñ ko woon kon nga xam ne Ceerno Ahmad Tijani wallahi bu doon am na lu ëpp njàmbaar wallahi kon seedeel ko ko yal na yàlla yàggal ko e, e, ci jamono yal na yàlla may ko wér yal na yàlla taas ñuy ci barkeem tam bu ko defee itam fa tabarakallahu noonu rek la ñuy nuyoo itam suñu maam jee nekk ca Tiwaawan nag waaw boroom jamono la loolu la yàlla dogal ci moom muy Serigne Babacar Sy Mansour al Khalifa radiyallahu euh, waaw ba tey sax baax na rahmatullah radiyallah yëpp mën nañ ko wax kuy dund ah ndax nit ca ba muy dund soxla na ngërëmal yàlla ca ba muy dund soxla na yërmande yàlla kon fa tabarakallahu moom itam wa ayyadahu wa nasarah yàlla na buur yàlla yàggal jàmmam yàggal fanam tabarakallahu mboole xulafa yi nga xam ne itam ñoo ngi fi yàlla na yàlla bàyyi leen fi ñoom itam yàggal seen jàmm e, di wax rek ni jotaay bi incha allahu lu lu lu tàmbali la waaye beneen yoon incha allahu maa leen ko ci kattanu yàlla ci Wilane TV nag lay jàllee waaw dinaa waxtaan ak yéen ci Thierno Mohamed Saïd ci mbindam ak ci téere yi mu saraa ci tariqa tijaan ba ngeen xam kan moo doon Thierno Mohamed Saïd ci wàllu xam-xam dëgg ngeen xam poids bi nga xam ne moom la amoon ci xam-xam waxam ni mu naqaree li jënd sax moo lay xamal ni kii moom niveau bi mu nekk du niveau yi et kon nag tabarakallahu bokk yi loolu rek lañ leen ni nañ leen ko indil ci ndigalu kilifa yi nga xamante ne bii ni ñoom ñooy saytu euh, euh, euh, mbiri daaka beeg la caaju yëpp yalna yàlla mottali yalna yàlla maye ñu fekke ak jàmm at yu bare bare bare ken bañ ko outé lépp lu ñu fa ñaan itam yalna borom bi tabaraka wa taala nangul ñu ko ci daraja yonent bi ali salaam wa rahmatulah sheikh ahmed Tijani radiyallahu taala an allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan tunasibu qadrahu wa miqdarahu al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin macha allah defe naa ne ñëpp am nañ euh, mbégte am nañ satisfaction ci njàngale mi ak ci xereñ gi macha allah moom soppi ñëpp la wax naa ko ko ma ne ko ñi la sopp ñëpp am na luñ ci xam ndax léeg-léeg nit di ñu revendiquer ne jokkoo leen sëñ Ahmed dalal ko mu waxtaan ci wala mu waxtaan ci laa kon ñun xam nañ bu wér. taalibe yi niñ koy bàyyee xel li waral loolu rek mooy wanul boppam nit ñi waaye dafay indi njàngale Cheikh Ahmad Tidiane di ko wax ci ni mu ko gëmee ak ni mu pour ndaw ñi mëna xam fi ñuy tek seen tank donc ñi ngi koy sant ñi ngi koy gërëm ci li mu def tay wone na benen preuve que ni mom tariikh bi moko ñor ndax mënon na rek ne tiwaaw la aju sama yoon ci fenen wala fenen waye xam na ne tariikh bi jamono bi ñu nek benale ko dafa war dafa jaadu te lo lo loy loy wax ci kilifa day fekk nga xam ko parce que man nga sax jël intention wax ci benen kër ta xamoko ko ba fa wax lo xamni dana yaq waye mom limu wax ko deg lu xam bari na ko aju Madina guna ta xamoo limu xam ci cheikh amadou tidiane ak limu xam ci Seex Maam Sayid ko donc kon liñ bëggoon lépp commission bi wax ñu ko ñoom Thierno Seydou bëggoon ko tey yaakaar naa mbokki auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu ak auditrices yëpp am nañ satisfaction totale sëriñ bi duñ def lu ñaanal la yàlla rek yàlla guddal sa fan li nga bëgg tariqa tijaan yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. sosocceede ruhuuji men laaɓa cer nga juuraade de ɓe mbuur e guna